ba tey ñu ngi ci jihaat ñi nga xam ne kenn du leen rey loolu waxoon ne ne wa illa ko ci loo ko ci illa marata ndara jigéen kenn du ko rey mu ne illa fi muqaatalatiha ndara ci xeexam ba wasa bi ak gune yi bi wasa bi gune yi duñ ko rey dégg nga pour ma ak koo xam ne xelam dem la moo xam ne xel ma neexul mais que sayqin ni que mag fàññil mu takk tàkk màggat la moom itamit kenn du ko rey dégg nga wax bi wa ak ku lompoñ dafa lompoñ koo xam ne ay ciram ñoo mënu dara wa ama ak aji gumbo ñii duñ leen rey wa raahibin ak labe boo xam ne mun asirin aji beru la fan bi dayrin ca kase daraal ba la nekk kase daraalam ba gisalu ñun dara mu ngi kase daraalam ba fa mu jaamoo yàlla kenn du ko laal aw samaatin wala ci église bala nekk ñi kenn du leen laal te nag bilaa rayin joxuñ benn xalaat nag wante bu ñuy bu fekkee dañuy lay ay plan de guerre dinañ di rey de bilaa rey joxuñ benn plan guerre dégg nga ne wa turika bàyyeef na lu mu ñeel leen alkifaayatu lu dee sëkk faqat dong nag loo xam ne leen doy te seen alal yi alal yéefar ya ñu bay leen ko nee na wastaxfara na jéggalu boromam xaatiluhum seen aji rey ku leen rey ni jéggalu yàlla daa amul fayu nag na tuub lu mu ci nam wax nii jigéen jéeg gune yéeg màggat meeg ku lompañ keeg gumba bi ñooñu ku ci rey na nga jéggalu nga jéggalu tafara xaatiluhum mu ne kaman lam tabluxu comme ko xam ne jotu ko daawatun waxta yonent bi xamul ne am na koy wata jëmee ci yàlla koo kenn ko rey wa in xiisoo ndem jàppef na ba làq leen ñoom noonu ya ndem jàppef na leen ba làq leen wa in xiisoo a di bi mooy njug ku xam ne du labbe bu ci ci gannaawam ku ñuy zoo bu pare ñu rey leen kon nu muy demee ku ñuy zoo ndem reyoon leen ñu jàpp ba noppi rey leen te du mu ñële kon lu lu ci islam wax kon fa xiimatum seen xayma ne ko fay te leen rey te leen rey na fay seen xayma ba ne war raaxibu labbe bu góor waraay bëtu lab bu jigéen xurraani ñaari gorloon kenn du leen laal kenn du leen laal xurraani du leen jàpp leen def dara dégg léegi nag kon dem nga ko laaj nag rey gi nu muy demee rey gi nu muy demee na rey gi de nu demee mooy bi maa mayin dagg seen ndox ma ñuy naan duñ naanati wa alatin seen jumtuwaay ya nangu ko seen jaasaak yooyu rey leen ca fa di ngox bi ubbi naa ak safara yi di bu leen neexee bu jeexee jullit ñi ñu rey leen safara rey leen safara waaye in lam yumkin mu jàppandul xayruha lu dul safara bu jàppandee nag kenn du leen reyee safara lakk la ñu dee te leen jàppandi déedéet in lam yumkin xayruha te wala yu nekkul fi mu ñoom mosu mun julit te yi nag julit new ci ñoom bu julit nekkee ci ñoom kenn du leen reyee safara dégg nga wa imbi suufu ñun donte ko dañu nekk ci biir gaal sax wa imbi suufu ñun ci ay gaal ñu nekk wa bil xis ni ak tataya bi xëy taxariqin lu dul lakk nag wax di nga wax bi wa taxariq ak labal fekk na maa suriyatin ànd ak njaboot bu ndaw ga maanaa dañ ñuy def plan jël gune yi def seen kanam pour ñu pour ñu yërëm gune yi moo tax mooy maa suriyatin bu loolu amee bu ne kenn du laal nangu nañu leen laal dana pexe ñàkk pexe fekkee nga xam ne lakk mën na bañ a am mën na bañ a am nañ ko def moo tax ma ne kon maasuriyatin waaye nag déggal de wa in tarassu bi suriyatin bu dee nga xam ne ñoo pakkoo njaboot gu ndaw ga tur koy bàyyi leen bàyyi leen kon kenn rey ñu bàyyi leen tënku ko waaye nag ilaa la xaw fin lu ragal nak bu ñu ñu lor ñu muslimin fekkee dañoo jël ay gune jullit ni ñan japp def seen kanam kon duñ leen baye de wa lam yusad defu dublu defu dublu lam yusad atur su pakk ba dañu moytu pakk ba da jël doomi def seen kanam dañ dem attaqué leen dañ ne mooy doomu jullit ñi loolu waxoon ni la ilal xaw fin uy muslimin la ñu soxla tursu ah ngi yàlla lu ma ñu ragal nag lu ma ñu ragal nag bu ñu baaxee ñu lor ñu bu ñu ragalee loolu ah kon ñu songu leen de kenn du leen bàyyi hmm. xam boo sànnee boo sànnee ay xej wala yu mel noonu mën nga jam gune loolu lañ namm mooy ne in lam yuqaf na da ko yàq def an in lam yuqaf ñu daga leeful ala aksar muslimina lépp ci jullit bu dagalee nag bu ñu leen bàyyee ñoom ñu jeexal jullit ñi ah ñu ñu masale dem béyam gumba rek masale rek ñu xamee gàncax ak ñu xamee gàncax ak ñax dagg rek kon dañuy bombata rek moo in lam yuqaf wala yuqaf boobu yuqaf ragaleeful xale ak seen la gën a bëri ci jullit ñi ñu ko ragalee bombardé rek nee na waxaruma xaraam na nablun fett goo xam ne su ma toggee na ko ci jaar fett guñ toggee xaraam na wa tijaanatun ak dimbali ko bi mu sëgin ci kuy bokkaale dagoon na dimbali ko kuy bokkaale araam na wasti'aanatun bi mushrikin yëfër kenn du ko dimbali ko ëllëg tax mu ëllëg mu naan maa leen dimbali nag yu mel noonu duñ ko nangu islam dafa am yu muy teeg dafa am yu muy bañ islam dafa am yu muy bañ lépp lu sewal islam du ko solo dañ koy bañ ah mu ne ah ilaa li xidmatin nag lu mooy liggéey kaay liggéeyal dagan na woon dagan la waxaaraanu bëri irsaalu musafin yónnee kaamel lu mu ñeel leen yónnee kaamel seen réew dafa araam de dafa araam de dafa araam de wa safaru ak tukki bii ca kaamel bi an li ardihim ñeel seen suuf sa daganut li bo oxran seen suuf daganut dañoo sobe dañoo sobe mu ne kamaratin ni ki jigéen tukki moom kenn ci réew ju yëfër yi daganut jigéen dong benn jigéen daganut masala bi nag xam naa dana doy waar daganut de daganut de mu ne ah ilaa fi jaysin la mooy ci ay militaire am ñu am sécurité ñu am donc dagan na moom ba tey xaraam na firawun daw di jihaad daw xaraam na balaqal muslimoon daf julli ña mën nañ nit fa gën wàllu yéefar daw xaraam na daw xaraam na bu dee nga xam ne julli ña mën nañ gën wàllu yéefar ya daw xaraam na te wala yëpp loko matuñ ñoom jullit ña matuñ isnay asrata alfan fukki yu ñaar bu xasee am fukki yu nekk ñaar moom yëfare mën nañ téeméeru junne dafa xaraam bu ñu xasee mat fukki junne ak ñaar li li yëfare bari bari dafa xaraam mu ne illaa taxarufan lu muy njuy mel ni kuy daw fanaa ger la waxtaa wi san wala làqu ci sa mbokk jullit ñi ñaaw yoo dagan moo tax dégg nga waxoon ilaa taarufan taaruf taaruf mooy ki topp da nga mel ni kuy daw mu topp la nga nga nga njoy ko geer la ko du daw de wala taayus ba da nga ne bëreet làqu ci biir gaay yi ndeke yaa ngi noo ko noo te du la gis ko mooy taayus ñaar yu dëggan nañ ya taarufan aw taayusan wa taayusan waaye nag in xiifan ni warga leew na wala mudlatu mittal dafa araam dagg bët bu buqi bët dagg nopp yu mel noonu dafa araam di ko def yëfari loolu la wax de dafa araam xam nga asin ak gàddu bopp li bëri njëm ko ci beneen dëkk rey ni rey yëfar bi dagg bopp yóbbu yóbbu ko di ko woon kilifa ci beneen dëkk aw waalin wala ko woon ab gouverneur mel noonu araam na maanu racine xaraam ba tey gàddu bopp ci noonu ya boo ci dëkk bañ ko reyee dugub feneen aw waalin dafa araam de wax ah, di nga wax de waaye nag Kaab bun Asraf bañ ko reye boppam ba gars yi ko xay ba yónni andi ko andi ko Madina Munawwara jox ko yonent bi Kaab bun Asraf mu doon kilifa gu mag gàmm gàmm gàmm gàmm pour léegi kontaan loo kontaan loo yonent bi kontaan loo julli ni xam ne nag ngóob mi mi rey nañ ko loolu amoon noonu wa qiyaadatu asirin ak wuruju koo xam ne pirsoñe la boo xam ne uti ne wóolof na ko taa coobareem dafa dafa araam de dégg nga walaw xalaa nafsi yi kon moom ci jëmmam la du kenn walaw ga moo ko moo ko ne du daw mukk nag dañ jàpp mu ne moom nañ ko may kóllëre mu ne biir jullit ñi ne du daw du wuruj gannaaw gi mu départ daw dafa araam moo tax ne ko xiyaan sa asirin wuruju koo xam ne ab yéefar la muñ jàpp otu ma may ko kóllëre may ko kóllëre taa ci jobare moo ñu ne man bëgg naa nga may ma kóllëre man seen dëkk bi di liggéey du ma leen xuruj du ma wax seen nangam nangam ñu d'accord ci moo tax mu war a xalaat naf si donte kon sax moo ko sàkk ci boppam dafa araam.